côté boobu fa ngay gisee ni mbaax des fois du walangaan xam nga yonti yàlla noox wala yonti yàlla lóot ay yonti yàlla yoo xam ne kenn gën leen baax doom ji góor jigéen am nañ ay doom yu bon nest doom bu bon yàllaa koy joxe comme doom muy joxe doom bu baax waaye pour dire que rek. mais on ne euh, sait pas toujours on parce que moom posé ko question ba tey moom nee na xamul il peut pas dire carrément que. non non Akon la. je ne peux pas le dire waaye ñi mu àndal. voilà ñi mu àndal mais na ànd. groupe am boobu yëpp war a andi seen xaalis. oui war a doxal mbir yi. wax dëgg yàlla ñu si bëri ay franc-maçon lañ donc ma ne kon euh, les links de la maçonnerie au niveau au plus haut sommet de l'État euh, link yooyu moo ba ci Sénégal ay ay ay groupe armé ñëw Sénégal sous Macky Sall parce que Macky Sall dafa am benn dafa am benn connexion ak États-Unis bi nga xam ne Sénégalais yu bëri gëstuwuñu ko te xooluñu ko donc Macky mu ñëw pouvoir ba tey depuis ba mu joxee ay ay bloc de pétrole ak gaz jox ko ay entreprise américaine mel ni ñoom Conoco Phillips si bëri ba si ay entreprise groupe yu bëree bëri ñëw investir fi dafa exposé Sénégal ci benn dimension bi nga xam ne de terrorisme bi nga xam ne Sénégal yu bëri bàyyi ñu ko xel groupe bu ñuy wax euh, bu ñuy wax euh, nta sax euh, système militaire privé la bi nga xam ne ñoom ñoom dictionné ñoo ko moom ak ak ak George Bush. mooy benn dictionnaire benn ancien secrétaire de la défense. Mhm. li ñuy wax Haly Burton la tudd. Haly Burton boo demee internet sax seet leen ba ci Irak ba guerre bi tàq ñoom ñoo taal dëkk bi maanaam ay anciens GIES la yoo xam ne ay mercenaires américains lañ qui travaillent avec le Pentagone et la CIA ils ont leur base fii au Sénégal wetu wetu Philips Morris ci sortie autoroute bi ils sont là-bas ak ay engrais xam ñu ko bind carrément Haly Burton ndax ñoom fépp fu entreprise américaine signé contrat moom ay intérêt américain ils sont présents pour les garantir ak les régler en cas de pépin ils sont prêts à intervenir c'est un groupe bi nga xam ne de plus de 300 personnes hyper armées donc pour dire que Sénégal dañ ko exposé dans des dynamiques yoo xam ne ñu si bëri si sénégalais yi comprendre ñu ko te xooluñu ko donc tous ces links là avec l'armée américaine avec la transformation de de l'ambassade américaine mu am autonomie bi nga xam ne dafa mel ni dëkk la am armée di ordonner ay programme yoo xam ne Sénégal mënu ko contrôler te xam ko ils sont ci catu géej gi c'est ay sous-marins yi jël dugg ci espace sénégalais def lu ñuy def génnaat te Sénégal mënu koo xam ndax c'est pas normal ngay jël ambassade di ko jox zone bu stratégique ci ay ci ci ci wetu géej c' que lii euh, soit da nga ñàkk a faare ci kanamu état boobu wala nga xamul li ngay def donc aujourd'hui les contrats. mais professeur est ce que du da nga bañ pas bañ est ce que du da contre président Macky moo tax président Macky Sall nag contre naa ko trop nag su ma waxee tamit dëgg rek. te yàlla <laughs> que ça se contre naa ko pour sa personne.